Tarkalla le le meilleur de sa génération Mame Gone Yacine. Tarkalla PDG baa ngi noonu Youssou nañ la def ni la yàlla def mu noppal yéen bu ñu la deful ni la yàlla def nga jaax. Tarkalla le le meilleur de sa génération Mame Gone Yacine. Tarkalla PDG baa gi noonu Youssou nañ la def ni la yàlla def mu noppal bu ñu la deful ni la yàlla def.